ngeen jëf am na beneen cas bu am ci corona bi bu bokkut ak cas contact mbaa cas communautaire cas de viol l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi benn xale bu jigéen bu toll ci ñaar fukki sa moom la ñu testé gis ne dafa corona ñu yóbboon ko ci benn centre de traitement bu nekk fii ci dëkk bi am benn agent Croix-Rouge bu bokk ci agent yi ñu yóbbu ci centre de traitement yi ngir ñuy taxaw ñi nga xam ne dañoo feebar hôtel ba ñu yóbbu xale bu jigéen ba foofee fa la waaj a nekk yéenekaay bi nañu moom waaj li mu def mooy bàyyi ba centre de traitement ba wéet ca la demee ci chambre xam ne bu jigéen bi nekk ba mu yéegee dafa yegg ci kawam violé ko xale bu jigéen bi ne ci enquête ba waa ji ba mu ñëwee ci làmbatu ko la tàmbali ba mu yàgg mu forcé ko jaay ko doole tëddee ko ndaw si teg ci ne ba mu koy violé gant protection yi ñu leen di jox ci la jël benn dagg ko def ko préservatif loolee la ko violé ndax am naam amul l'observateur nañu li am teleer ñëpp daal moo di agent croix rouge bi ba mu yéeg escalier yi di dem ci néegu ndaw ba mu yéeg la ko yóbboon ca ndaw sa mooy da ko doon may ndox journal l'observateur nañu li des nag yoon a koy leeral en attendant waa moom a nga ca kaso ba nekk rek àllarba ji juróomi fan ci wut ca la ko mandat dépôt ñu déposé coow loolee dëpp dem ci soleil national xooli fa li tukkee ci ndaje mu di réunion d'évaluation bi ñu doon def démb ca de la république te mu jëm ci xeex mbas mi journal bi nee nañu am na yeneen i dogal yu président de la di a terewul dàqul benn yoon teg ci réew mi ab état d'urgence localisé maanaam barab yi nga xam ne corona bi gën na fa wulee ñaay ñu tëral fa état d'urgence sàkku ne ci presse bi ci réew mi ñu moytu di tiital askan wi ci jàngoro ji ndax màccinu dimbo dana tax dimba weex sur soit ne ñu Macky Sall amul lu ko neex ci traitement médiatique gi am ci woppi coronavirus gi ci Sénégal dem na ba ne mi ngi woo presse réew mi ngir ñu xool bu baax li ñuy wax ci jàngoro ji ak it nañu koy waxee ndax amul benn njariñ ñu yóbbu yëf yi fuñ mu yeggul ba di yóbbu fitu nit ñi la Sénégal bi sampatina ay bareeram yoon nee na wopp si du ko jéggi Macky Sall mi ko teg las tegal ñu ci ne teg na ne cérémonie lii di levée du corps ak xew yi ñuy def di ko organiser ay nit di fa dajaloo loolee moom il faut que dañu koy dakkal général Mame Thierno Dieng njiital opital principal bu Ndakaaru di leeral ci las ne bari na ay malaat yu faatu hôpital principal ñi ci yëpp di kilifay diine ak i notable yu mag ci ay xew rawatina ci ay dëj fa la ñu leen wàllee feebar bi feebar bi ak ni ci nit ñi tàmbalee seleng lu di bayliku Sud Quotidien mi ngi ñuy wax ne président Macky Sall mi ngi ciy sàkki pexe mi ngi findu askan di leen dànkaa fu ci ne indiwaat état d'urgence ci réew mi lu mën a nekk la li njiit réew mi wax ci loolee mi ngi ci xët mu njëkkul observateur mu di dàq ñu teg fi état d'urgence localisé lii quotidien nañu Macky Sall ak xeex bi muy xeex woppi coronavirus yi dana ca yeex a am ndam dana ca yeex a dégg wiiw ndax bu séqee benn jéego jëm ca kanam ñëpp di tàccu ak di barawur mu séqaat yeneen ñaari jéego dellu gannaaw gannaaw ab diir bu nit ñi dëkkee daw l'hôpital yi réew mi ndax woppi coronavirus dañu fay dégg anki dina kay mi ngi ñuy xamal ne la woon woon ni na gaañe tàmbaliwaat nañu jëlaat yoonu loppitaal ngir dem di faju ji li ci ñu rek moo di toog bu yàgg ba ñu toog seen kër tax nañu bari ci ñoom bu ñu ñëw l'hôpital dañuy sonn lool li koy firndeel yéene kay bi nañu moo di benn étranger bu jigéen boo xam ne ñàkk a dem rendez-vous hôpital jural na ko njombe ndax feebar bi dem nag moom ba yegg foo xam ne il faut que dañuy dagg ween wi ween wëllu journal l'info mi ngi xëy di ñu xamal ñoo xam ne soxla nañu ñu wàllu leen jamono ji ci jamonoy coronavirus gi ndax mbas mi tax na seenub liggéey doxatul njax njaxte li ñu doon am dafa wàññeeko bu baax a baax ku baax ki fi bàyyeeko bu yàggul di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu yéenekaay yu bari ñu xëy ndool xëy nañu xamal ne denc nañu ko démb Sud Quotidien L'As lii Quotidien Soleil National Vox Populi Les Échos ak La Tribune ñoom ñëpp xëy ñu dellu si ca rob vox populi nañu ñeenteelu xalifa bu Medina Baye mën nga tëdd léegi ca wetu baayam ba Baye Niass mbooloo mu takk ko gunge woon démb ca këram gu mujj mbooloo ma ko gunge woon ak nañu bare Medina Baye ak na mu doon riiree démb foto bi koy firndeel mi ngi ci la tribune journal bi boole kookit kàddu yi tàggatoo au revoir Baye dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal 7 waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablet mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono. xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy télécharger rek. presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement